Euh, dañuy fàttali rek ni man Samba mbay laa tudd maay président conseil d'administration bu Agricole Afrique Agricole nag day kuréel goo xam ni dafa bëgg a jàppale lawal mbayin yu sell mbayin yu sell soo ko dee dégg la cay juddoo day sell mais la cay juddoo aussi day àttan li nit ñi soxla pour dund dund boobu nag yamatu rek ci kër baykat bi mais day jógee ci kër baykat bi moom dem ba ci taax yi lekk fu mu amee rek mbay am na léegi nag dafa am benn jafe-jafe bu juddu mooy que tey état sénégalais ak ay ñi mu àndal ñi koy liggéeyal dañu dem ba am benn jiwu bu ñu tuddee certifié ndax jaar na ci ay way xarala yoo xam ni defar nañu ko ba mu baax ba tuddee ko ni lii daal mucc na ayib waaye li muy mucc mucc mucc ayib at mu ne liñ ciy defar daanaka téeméer boo ci jël fukki juróom dong la béykat yi jëfoo kon jafe-jafe am na béykat yi ñu ngi wéyal. lanu tàmman yor ko seen seen jiwu kër jiwu kër la tudd sax jiwu kër woowa ba nëgë ñu ngi koy sàmm di ko doxal di ko di ko di ko di ko ji te loolu dina doxal mbay waaye non gis-gis bi ngay am ci mbay la am na koo xam ne kii dañ ne man damay bay pour dunde am na koo xam ne kii damay bay pour dunde waaye aussi yóbbu ci marché bi ndax bu ñu fàtte ni wax naa ni kaw gi fa la ñuy bayee mais taax yi aussi nekk nañu ay ñu ñu bëgg ñu bëgg xéewal gu jóge ci mbay ah kon léegi damay bay pour man waaye damay bay pour marché bi moom nag ñaari mbir li may bay li may ñoral war naa sakkan lool waaye war naa baax lool war naa bàyyi xel aussi fa muy ñore muy tool ba kon ñetti mbir ak yooyu bu nu àndee ah léegi nag am na ñoo xam ni ñoom dañ naan rek nan dem rek nañ na bari na bari na bari na bari waaye duñu xool cafka ga duñu xool melowa duñu xool la muy jural nit ka yooyu yëpp duñ ko xool te dafa jaar duñu xool ko léegi nag moo tax ñun atelier bu mel ni ñu ni déet nanu fexe ba am ànd boo xam ni ñu nekkal état bi di ko liggéeyal di ci gëstu am ci xaar war nañu mën a bàyyi xel loolee baykat bi soxla ñu waxtaan ba jiwu ba ñuy am nekk jiwu boo xam ne bii dina bari dina baax dina bàyyi xel fan koy ñorale ba pare dina jig ñëpp ci wàllu wér-gu-yaram. waaw am na loo leeral ci wàllu. góob jëm gémmiñ bi. waaw ak ngooñ mi. am na loo waaw loolu dama wax ni xam nga tey euh, euh, fu mel ni Sénégal at mu ne dangay ngay dégg depuis 2000 la ni ñu la ci mbay mi subventionné def nañ ci ñeent fukki milliards def nañ ci juróom mbenn fukki milliards mais yooyu boo ko xoolee ba ci biir la cay baykat bi jëfoo ci toolam bariwul mani kon ñi leen di defaral jiw war nañoo xoolaat seen bopp ndax jiw woo indi def ci alal te ki ko indil. jëfoowu ko am na lu ca sikk ma joxe rek benn misaal suñ dee ñebbe xam nga walet mooy teel a ñor bi ñu demee ba ci biir dañu ni walet nañ ko defaraat ñu jox nu ay jiw mais jiwu yooyu dañuy teel a ñor waaye ñu ba am ngooñ baykat nag moom day bay waaye day sàmm day soxla euh, ñebbe ji doom bi waaye day soxla ngooñ mi soo demee ca sunu gox yi li tax jëluñu ko boole ko sunu mbir day indi doom kese te doom ngooñ di teel a ñor ci nawet bi doo mën a sàmm ngooñ ma harmoniser day daj réew mi mais day tegu ci yoon tegu ci yoon mooy nit ñi ngi koy indil bëgg ko waaye rek lu jóge ci kaw nga indil ma te duma ko jëfoo man pour man xaalis bu sànn bu nu sànn ci volontaire la rek loolu mooy mbir mi a ah, wax naa ni gëstu baykat daa mu saam xam nga lu tax Euh, laata gerte di dugg si fii laata gerte di dugg si li fi nekk lépp mbayum jëm gémmiñ la mbayum jëm gémmiñ moo ci gis jiwu wa ko yoroon sàmm ko ci këram di ko toppatoo ñëw ci digg toolam seet pepp yi ci gën ni dayoo bi ndax xob wa ca ne war na yomb naa dindi ndax cafka gi neex na ndax ndax ndax yu bari mu tànn ko denc ko nag bu mucc ayib pour déwén mu jeyaat ko jaay amul woon tàng moo daan am jiwu kër moo amoon loolu nag di law di law di law ba gerte ñëw colonisation dugg si mbay wenn wirgo taxaw lu bari réer boobaak tey nag semence paysanne a ngi dem mu ngi yàqu fa la commencé dem ay agression ñu koy dóor muy daanu ñu koy dóor muy daanu ba tey bari na yoo xam ni tey rëccëndu amatul ko léegi nag ateli yu mel nii ak acteurs yu mel nii dañuy dajaloo di xoolaat li fi des lu sàmm ko